très cher ami internaute de la Sen Série TV maa ngi leen di nuyu leen remercier bu baax a baax si ni ngeen di àndee saa su ak sunu ay euh, programme euh, gannaaw nag saison boo xam ni neexoon na lool ñëpp daal di koy apprécier euh, ndax thématique yu am solo yi nga xam ni moom la ñu ci doon véhiculer seen série d'échéance bi nga xam ni mooy am ci Marodi TV daal dinay dellu si ndax band annonce bi fësal nañu ko li ñu gis ci bande annonce bi nag ça promet beaucoup ndax gis nañu si ay perspectives yu bees ay regret waaye itam ay secret yoo xam ni dañu ko daal sénégalais kon ñu topp leen ci deuxième saison bi pour xam fan la professeur Diop euh, di mujjee ak madame Taylor waaye itam ak ñaari sëtam waaye ban euh, ki nga xam ni moo di damel itam fan lay mujj ak mariage arrangé bi nga xam ni moom la defoon ak Soda euh, ki nga xam ni moo di Mati itam ak famille wam nan la nan la leen nar a yoree amee ni duma mi leen doon jàppale daal dinañ koy faat baneel itam dem kër professeur Diop daal di koy infiltrer loolu ku ne xam na ni a mujjee dafa muus te nag bandi dëgg la ndax cerveau la en tout cas lu ci mënti am rek ñun euh, seen série dinañ leen euh, ko toppal ngir nag euh, décortiquer leen bépp épisode boo xam ni am na ci saison 2 boobu bu déchéance dañu jox leen dig daje kon à très bientôt incha allah.